Xalil waaw maa ngi laa waaw na ci rek sa chemise baax na waaw gis nga rek eh. Eh, sama xarit ba Mathias moo fi jaar prêt fi jaar moo fi jaar ah. Ah, jigul ndaaraan jigul sëriñu tariyaa <laughs> waaw moo ma tee ne dung ah dëgg yàlla en tout cas gàcce na la <laughs> ah, allah maa léegi tey nag lu indi nag waaw tey li ma indi xam nga dañu nekk ba tey ci waxtaanee euh, waajtaayu sëy mhm. maanaam duggaguñ ci néeg bi mais ñu ngi ci bunt bi. Mm, ci la fois passée ñu ngi doon waxtaan ci ci critères yi nga xam ne moom la euh, euh, góor war a tànnee soxna. <laughs> tey nag ñu ngi dem ci critères yi nga xam ne mhm. moom la jabar <laughs> war a tànni jëkkër parce que nee naa la nee naa la nee naa la ay mbir yu fasantikoo la <laughs> uh-huh. parce que góor mooy ji mhm. ci jigéen lay ji. doom la ñuy ji. kiy ji. Mhm. fi mhm. muy ji. li muy ji li te tool bala nga ciy ji dara il faut que nga préparer ko. Mhm. kon donc tànnante dafa war a am. la fois passée nee naa doom ju jigéen jànganewul ndeyam ay sëriñam. waaye doom ju góor it meew mi mu fekk ci géttig baayam la mën a màndee. doom ju góor dinay jël jikko yu bari ci baayam. moo tax jigéen. dafa war a tànn ka muy sëyal mm-hmm. du góor rek moo war a tànn dañu wax ne nag eh, tànneef bi gën mooy jigéen boo demee bay tànn tànnal critères yi bi ci njëkk mooy góor gu bari yërmande am solo bi ci topp mooy góor gu fonk diineem muy deuxième point góor gu am fulla góor gu am jom góor gu jaboot gaaf jaboot bu ñuy wax jafoo jaboot mag ñi dañu lay wax góor boo koy tànn tànnal góoru picc góor picc bu yor jikkoy picc picc day dem ba ci mboolu dugub mu mën faa toog lekk ba suur dem ñibbi. mais dafa am lu ko yàlla dénk mu tudd ab gat fa lay denc. di sàkk di denc di sàkk di denc sàkk ba mu bari bu ñëwee ba ci njaboot gi nag ku ci nekk mu xont la ba nga suur moom mu soog a lekk. góor googoo jara tànn. xam nga souvent erreur bi ngeen di def yéen ci ñàkk a seetlu <laughs> da ngeen di génn nag benn waay. mu ne leen tey dama bëgg ñu génn reer ngeen dem ci benn restaurant de luxe mu fere fa trente mille ba quarante mille au même moment say waa kër sa yaay sa papa say rakk say mag ñu ngi am problème ñaari potu cere yu ñu reere waa ñun nag ñu yaakaar ne kee mooy waaji non boobu bu dee góor gu gaaf jaboot mhm. même yow boo ko ko proposé ñu dem ci restaurant de luxe mu ne la par exemple ñaata lañ fa war a frais nga ne ko foofu day ay trente mille dina baax ak nangam mu ne la est-ce que duma la ko jox nga togg seen kër reer ñun ñëpp ñu reer kooku góor gaaf jaboot mhm. mais góor mën na la yóbbu resto aussi après mu def commande nga yóbbu ko sa kër ah. xam nga am na yoo xam ne dafa gën a jekk te gën a rafet. <laughs> ñun ay sénégalais lañ dafa gën a jekk te gën a rafet. parce que resto ba ngay dem. lañ la fay jaay bu dee këru jaboot la am na yoo xam ne doyewu fa mhm. te trente mille quarante mille kër gu mu dugg reer ba doy ah, góor bi lay proposé nag ne la nga wax loolu nga wax loolu nga <laughs> proposé ok nga proposé ko loolu moyen bu bëri aussi quand même mu doon ki nga xamante ne peut-être tey euh, bu demee kër ga dina fa bàyyi ay ay billets yu bëri ah, xam nga xam nga dañuy wax ne xam nga dañuy wax ne Euh, damay bañ ngeen dem bi ci biir. Mhm. ab bi woyu ajaratuma jooju ñu ngi bi yàlla na ko yàlla yërëm. amiin mi mu wax fiiruma dafa am lu may bañ fiiruma loo war a yóbbu ci kër gi loo war a jox ci kër gi. Mhm. nga yóbbu feneen di noos. Mhm. fekk na yow ba mu lay doxaan. mu ngi woon ci loolu mais jéemoo ko ci woon dindi. ëllëg nag bu la takkee ba biir indi la ci biir këram nga gis ne mi ngi def loolu bu ko ci yedd ndax ba mu cay door. yeddoo ko ci Youssou Ndour nee na ci yow la ko njëkkee Youssou Ndour nee lépp lu tasee rek nuye woon na ca ngoro ga dañ koo ta talluloon a fay loo xam ne du dem ci biir néegu sëy da koy teel a freiné ca ngoro ga hmm. mais nag am na ñoo xam ne neexaayu ngoro mooy tax yenn yi duñu ko freiné geneen góor gi mooy li tax ma ne la góor gu bari yërmande ah, góor gu bari yërmande Rane Diallo en 92 génne woon na fi benn morso ak aswaali asamaan tuddee ko sëy mhm. mi ngi naan euh, ba nga ma daan bëgg danga ma daan neexal di ma tarbiyu ngir bëgg a sëy ak man mhm. ba nga ma daan bëgg da ma daan neexal di ma tarbiyu bëgg a sëy ak man mhm. li ma mënta muñ moo di dóor ba ciy gaañ duma ma jubbanti booy génn xale bu góor mu natt sa mbëgg bëggeel ci moom fi mu toll léeg mu harcelé la waaxu dugg sa garde ne la fuuf am pes nga xëy suba teel sa yaay ne la maamu lu leew sa leex bi uh-huh. ne yamba ma mat wala dama doon sangu tarxis daanu nëbbal ko sikkam boobu ëllëg dina la wañaar damm sa loxo ci biir néegu sëy parce que uh-huh. wonoon na la ko ci ngoro gi il faut faire beaucoup attention uh-huh. góor dañu koy tànn ndeysaan gi maa ngi maa ngi maa ngi ndeysaan Euh, fàttaliku sama baay ju baax ji yàlla na yàlla yokk leeram bu mosoon a joteeg nit rek bu ñëwee ci kër gi guddi li muy njëkk laaj mooy ndax xale yi reer nañ loolu lay njëkka a laaj boo diit di tele da ngay dégg mu attaqué kooku moo gaaf jaboot est-ce que xam nga nee naa parfois boroom kër jënd saaku ceeb du bi ba saaku bi di jeex du ca tibb du ci du ci ñam ab tibb te da koy gis sax muy wër ci mbedd yi di añee caaf ndeysaan mburoog caaf. mburoog pain au chocolat. te pourtant waa këram. mi di kañ ña nga taaj boolu ceebu jën bu xonq cur di xewul te moo fa bàyyi dépense bi. kooku mooy góoru picc. nan la ñuy tànnee bul tànn rek topp sa xol. li ma waxoon la fois passée bàyyi leen gel bi tooy na waaye yéen it bàyyi leen waa coofe na. <laughs> boo goos bari njëriñu ko gën. boo goos bari yërmande ko gën. boo goos am cofee la ko gën boo góos jullitee ko gën parce que garab bu la sutul mënu laa may ker. wax nga dëgg moom waaye di jeexaleen nag ah. mhm. dafa am ñoo xamante ne dañuy nëbb seen jikko. am na ñoo xam ne effectivement xam nga yaakaar rek la nit mën a am. yaakaar la nit mën a am ci apparence. mën nañu ñëw. ci téléphone wala yërmande. ci téléphone sax woon la keneen mooy li daan jàll wax bi nga ma daan bëgg danga ma daan neexal. Mhm. Mhm. di ma tarbiyu bëgg seeg ma seeg léegi nag ki yor du saqat <laughs> ñooñu duñu jafe xàmme mais yow defal sa devoir rek tànnal ki gën rek te nag wax dëgg yàlla ñaan mooy ngaanaayu jullit bu ngeen julee tey ba pare bay ñaan boole leen ci yàlla na ma yàlla boole dajale góor gu baax eh, jëkkër ju bari ñaan jëkkër ju gaaf jabar problème bi mooy xalil waaw problème bi mooy waaw di ngeen di xas jigéen ñi moo ne ci yéen da ngeen di am am seen i jikko wocc ko ci buntu kër gi dugg ci biir kër gi salaamaaleykum timis jot nga ne alma si jaad bi satala bi samay jàpp nga jàpp jul julli woo suba teel julli woo tisbaar julli woo tàkkusaan timis gi fekk la ca kër nga ne da nga koy julli nga julli ñu ne ah kii de am na diine mhm. ñu ne dee tawaay heure reer jot ñu teg soom bi nga ñëw sëgg ci mhm. lekk ba suur pour mhm. wane ni quoi yow. yow garaaw yow amul benn problème waaw. Mhm. di ko répété bañ ne ah góor bu baax la macha allah te am na yërmande xoolal ni muy def ak xale yi. Mhm. xoolal ni muy kii wax xale yi kii di góor bu baax la. léeg-léeg nga jënd waaw heure que ba ngay ñëw. da nga xam ne nii laa mën a def pour convaincre. famille bi ak xale bi waaw. nit ki dem ba ba sa kër fekk la fa. nga won ko leneen lu bokkut ak li nga xamante ne moom nga ko convaincre ba mu xam ne ba mu ne kii mooy ku baax kii. loolu itamit il faut ngeen koy nangu ñun dañuy dañu commencé tànn mën naa ne sax yàggul ndax ñi nga xam ne peut-être que yàlla dafa woon woon ni ñooñu xëy na peut-être ñuy commencé comprendre que ni nit mun na wane lu mu doonul nit mun na ñëw te ne damaa baax fekk baaxul dama jullite fekk jullitewul nit mun na am fi li ñu naan marque bi ñuy am fii ñuy julli ñoo koy am mais am na ñoo xam dañ ko am te julliwuñ uh-huh. xam nga li nga wax noonu dama ci ànd ak yow parce que nit ki mën na afficher kaboy dawal indo <laughs> loolu day am uh-huh. mais essentiel est que yow sabab loolu rek li ci des nga bàyyi ci loxoy yàlla parce que yaakaar a tax baykat jël gerteem dugal ko ci suuf yaakaar a tax nit takk soxna pour am ci doom yaakaar a tax nit xëy suba teel di weddi aw ñaqam pour am ci dara am leen yaakaar te fas yéene tànn ki baax. léegi lan ngay xamee ku am nit dafa lëndëm. nit dafa lëndëm mais yéen def leen li leen war rek def leen li leen war. mais la nouvelle génération ñu ci bari li leen yàq mooy. dañuy xool d'abord kii kan la du ñu xool jikko de li ñuy xool mooy ndax yor na ba pare nag parents yi am ci part de responsabilité bu mag parce que da ngay génn ak nit sa yaay ne la lu muy liggéey seen waa kër ñoo lay njëkk a wax lu muy liggéey. nga xam ne lu muy liggéey nga dem présenté ko say. sama sama sama sama sama copain bi lii mooy situation tuñum gëlëm lang na waaye waddul. waaye des fois bari xaalis taxul nga koy jox nag nit nag te seen waa kese duñu xam ki bari xaalis taxul nga bari yërmande bari xaalis taxul nga bi nee na léeg ñu takk nit yégal ko ci château ak oto. te bu guddee du ko teree jooy. léeg-léeg ñu takk nit dugal ko ci sàkket ak te bu guddee du ko teree. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ah Kumba Gaw laa ko wax. xam nga bu ñu waxee loolu. dañuy tënk dañuy dañuy waaw mais kon donc. chance bu ngeen ko waxee dañuy dellu ci ñaan yàlla ki gën. xam nga chance mu seen jikko doon benn. xam nga xam nga lan mooy problème bi. gis nga gis nga nit. Hmm. ñun nit ñi. Hmm. yàlla moo ñu moom. Hmm. te yàlla du juum. du jaawale. te dafa xam. loo xamul. maanaam loo xam-xam sa bopp. yàlla moo la gën a xam sa bopp. Mm-hmm. parce que dafay xam li nekk ci sa biir xol. Mm-hmm. xam li nekk ci sa conscience xam nga yéene. Mm-hmm. moo tax yàlla yàlla yàlla ne man du ma tooñ. yàlla da ne man du tooñ. ba pare damaa araamal tooñ ci seen i diggante kon bu leen tooñantee. xam nga gis nga euh, yonent bi daf ne innamal a'maalu binniyati. mboolem jëf yi ñu ngi aju ci yéene. dëgg la te kenn ku ne li ngay yéene. Mm-hmm. moom ngay am. Mm-hmm. gis nga bëri na koo xamante ne dafay am lu muy wane. fekk bokkut ak li nekk ci yéenam ci biir xolam. dëgg la loolooy problème bi. Mm-hmm. bëri na jigéen ñoo xamante ne ni li ñuy xool ci góor. mooy na am xaalis. un point. un tiré quatre-vingt-dix pour cent ci jamono jii laa la wax de jamono ji ñuy dund. li ñuy xool ci góor mooy na am xaalis. na ñaaw na gàtt. <laughs> nay dóore na mel ni tafaangom ñàkk kersa. sa yoon nekkul ci loolu. Mm-hmm. na am xaalis un point un tiré. bu reewee seetlul seetlul seetlul nga am far man ci jigéen ñi laa gisee. Mm-hmm. nga am far wu lay may deux cinquante mille trois cent mille cinq cent mille huit cent mille. te takku la te takku la. <laughs> ba pare da naan soo amee aw far su la mayul xaalis nga ne kii amalu am njariñ amalu ma njariñ dëgg waaw amul waaw léegi parce que lépp jamono jooju lay feeñ moment doxaan bi foofu nag su fekkee ne xool est que kii mhm. euh, vraiment mën na joxe est-ce que ci poche am xam nga nit ki tey su fekkee ne sa cinq francs la am wala vingt cinq francs mais mu mhm. yéene la ci dara mhm. nga xam ne kii moom yéene la yéene ko mais nit am ni yow di def yéeneen un franc ak niteem. moo koy niital addinaam. dëgg la. te nite moo di boole natt ak nit. Mm-hmm. ba ràññee ëpp ak jëkk. Mm-hmm. di taamu lu mat sëkk. Mm-hmm. gis nga boo nekkee nit. muy ku góor ak ku jigéen. soo leen àndee ab diir bu fekkee yow nit ku nite nga. nga di natt ak di seetlu. di xayma ak a takk ak a càmbar. balaa yàgg di nga xam kii. ci ay jikkoom di ci xam dara. dëgg la mënta ñàkk bu fekkee am nga xel laa wax. mais nag su fekkente ni yow sax yëpp da nga ko canaliser ci lan. Mhm. kii lan la may may lan la may jox mais doo tax la xool ay jikko ak ay meloom. xam nga nit mën naa ñëw. nit nit mën naa ñëw. <laughs> ma daal la ñëw may la 300000. Mhm. nga di la doxaat may la 300000 fekk tabewul. dëgg la. tabewul de. dëgg la 300000 yooyu mu la may dafa am lu tax. bien sûr tabewul. wala bu la takkee gis nga góor dina tabe. Mhm. ci nga jàng ak tabem ci moom. ci donte sax ak téeméer la lay may mën a ñaar téeméer. bokk yow. loolu loolu amul jigéen ñi ñoo amul temps wu xool loolu. soo mhm. amee te li ci gën a garaaw mooy ji góor gi gën a rafet jikko gën a baax. Mhm. góor googu la ñuy gën a bañ. am yambar la la ñuy wax. Mhm. wala ab oustaz la wala kii dafa tooy wala nangam. gis nga temps tànn boobu moom lañ amul. xam nga lan la man dama ci waxtaan ak ay jigéen yu bari dama ci dama man lii li ma lay wax nii. dama ci waxtaan ak ay jigéen yu bari yoo xamante ni instant bii may wax ak yow. ñi ngi tàmbalee weesu ati sëy mm-hmm. ndax jigéen su demee ba am trente cinq ans quarante ans mm-hmm. nga ne ko sëy mu naan la dafa teel waaw kooku war na noo xoolaat bopp bi dañuy taal daal dafa teel la lay wax dafa teel wala mu ne la wala mu ne la xoola góor ñi mm-hmm. defalatuñ jigéen ñi dara ñoom ñëpp wala mu ne la góor du projet waaw yaa ngi dégg esprit yooyu bu fekkente nii moom la ñu tàmbalee yor ñun fan la ñu jëm duñu dem léegi góor ñi su mu demee ba comprendre loolu. ci mhm. jigéen ñi. Mhm. xam jigéen ñi léegi dafay nekk la xam nga day mujjee nekk lan. benn jeu de cache-cache. kenn ku ne di fexe noonu naxee sa janax ak muus. kenn mais bu fekkoonte ne lépp dañ koo teg ci. dañ ko teg ci tànn. Mhm. ci ngor. ci diine nee naa la nee naa la bëgg amul gore moo am. kese. kese gis nga nit da ngay natt ngoram. kese ak yërmandeem gis loolu ab yomb na dijee. waaw gis lan gis ku gore ku gore waaw. xam nga li ma la wax la yëf yi moom loterie la rek li ciy génne mooy sabablu te ñaan yàlla mu boole la ki gën bu njëkk Babacar mag ñi bu ñu nekkoon ak seen doom ju góor ci biir kër di natt ndax kii ku ko may soxna dina ko yor waaw wala déet. lañ mhm. koy dénk ak jur. wallaay bu ñu xëyee lañ koy njëkk a laaj. mooy ndax fas wi naan na ndax xont nga fas wi bu ne waaw ñu mayaat ko ab diir xool nu muy heure bu xëyee gis ah, nañu ne bala mu sël mu sax ah, dem xool fas wi may ko ngooñ jox ko ndox <laughs> wallaay ndeysaan kii ku ko jox jabar mu yor ko. Ah. waaye ndax fas wi naan na nga ne eh dama ko fàtte woon. bu dee jigéen la ñu yaral la bëy wala ñu yaral la. jeex na ndax may nga fas wi ngooñ eh dama ko fàtte woon ñu ne kii jotagul pour ñu may ko jabar parce que dafa xaw a négligent. mag ñi daanañu nattee noonu te nag li ma waxoon ci jigéen góor jigéen boo koy tànn xoolal ndey ja mm-hmm. parce que maam Kocc da doon wax ni euh, jabar ñu ne goro mm-hmm. doom ja ndey ja mm-hmm. waaye jigéen nit bu leen di tànn te jëkkër xool leen baayam nu mu mel parce que nee naa la fi léegi doom ju góor meew mi nga fekk sa géttug bàyyi nga mën a màndey léeg-léeg nga gis xale bu góor buy foog ay moroomam yor pono su euh, forme de oto Mhm. wala yor benn mbege ne ma ngay xëy mhm. dem wër koñ bi ñëwaat wut mbuus def ci ay xeer mhm. joxe ñu ne lan la mu ne sarica ci baayam la ko gisee wallaay ndeysaan parce que baayam la xam ne buy ñëw dina andi sarica xale bu góor bi xëy yor ponoom ne maa ngi xëy ka muy wax jabaram la def nii génn ay kayit. ay kayit jox ko ne ko dépasse. ci baayam la ko gisee. am na exception jamono ji. mais mais on dit pas contraire. mais dama la bëgg a wax ne. parce que nga kilifa ci kër naw ko naw boo xamante ne danga naan kii su ma duggee ci këram doomam ni moom la mel. Mm-hmm. nga dugg ci kër ga doomam jaar gauche. waaw guy dinay jur xatax. loolu man xam nga nit nit nit yéeneem. Mm-hmm. xam nga euh, danga ko wax léegi xale gis nga. gis nga mm-hmm. wàllu sëy ak nit kenn mënu koo xam. déet déet. yàlla suñu borom ñu ko bind képp ko xam. nit nag li mu am mooy yéeneem. te ñaare nag nit su yéenee dara yàlla da ko ciy fekk si. kese soo yéenee dara nii. dugg ko di ko ñaan. kese ñaari yàlla fekk si. kese c'est que nag yàlla du tooj. li ñuy ñaan yàlla bakkan bu ne la mu faggu. waaw ci lu baax ci laa seen xol li ci li ñuy ñaan mooy yàlla na ma yàlla may jëkkëru millionnaire. mais su fekkee yow da nga nekk jigéen boobu lu la amul waaye nag ci la bokk lay complément la ku yàlla dimbali. man gis naa gis naa benn waay boo xam ne nettali naa la ko la fois passée bi mu takkee jabar nekk ci dëkk ba muy liggéeyee comme ambulant jabar ji woo ko téléphone ne ko alalu golo ca lex ba damay ñëw <laughs> mu ne ko bul ñëw ndax fii ma nekk jekkul mu ne ko damay ñëw mu ñëw fekk mu am waa ji am mer gàddu ak siwo naanukaay ak rajo bu muy dégloo ak télé ga mu <laughs> télé yu carré yi loolu la am comme matériel <laughs> ñu tëddandoo ca mu xëy waa ji dencoon mbuusu gerte xott ci lañu añ taxul ndaw si ñibbi daf kaa daf caa toog di ko ñàkkanteeg moom bu waa ji xëyee waa ji dafa am yaayu koñ maanaam maire yooyu nga xam ne bu ñu gisee doxandeem dañ koy def ni doom. wallaay ndaw si bu xëyee waa ji xëy liggéey ndaw si day dem di wéttali maire bi di ko raxasal ndab ak di ko jàppale ci waa ñuy fa lay añee. wallaay mais taxul mu ñibbi. wallaay muy muñ loolu di ko ñàkkante di ko ñàkkante di ko ñàkkante ba tey situation changé na. tey ñu ngi rouler sur l'or. mais am na yoo xam ne nag dañuy wax ni loo fa ah, xaar bu très bien très bien kii nee na léegi ku la ka ngay tànn fa mu lay jox ku la amal lu njariñ may gu dëkk may gu dëkk nit dina lay may début bi de di la xëpp xaalis di la xëpp xaalis ba takk la indi la këram pour nga am ci moom juróomi dërëm dépense sax du la ko jox boo teggee natt nga laaj ko dépense mu ne la xanaa du dem nga tegg natt boo teggee natt ne ko jox ma ma xotti tabaski mu ne xanaa du dem nga tegg natt boo ne xale yi mu ne la dem leen ci seen yaay dem la tegg natt maanaam teg la bët mhm. fekk ne ba mu lay doxaan melul woon ak yow noonu lu mu yëkkati jox la léegi nag kàmb la ba nga dugg ci kàmb googu mhm. mu door laa woon jikkoom am na ñoo xam ne nag dañoo yor yërmande goo xam ne mhm. yoruñ dara de mais lu ñu am bokk kook yow mhm. mooy li ma la wax merci boobu nag laa bëggoon wax bi ma doon ne sànq maanaam mu lay jox maanaam même su fekkee ne vingt cinq francs la am nga xam ne kii am na yéene ci yow xam nga tey ji nii góor boo leen di génn di nga xam yéeneem ci di nga xam yéeneem maanaam te su fekkee ne sa amut euh, assez de moyen mais lu mu am rek mi ngi la ci mi ngi mi ngi yéene yëkkati ci la jox dara mhm. même su fekkee ne benn cinq cent francs la sa nga ne mhm. kii lii la am jox na ma ko mais am na ñi nga xamante ne duñu ko def jéem yàlla ne am na yére mais góor dañ lay dañ lay ñee yàlla dafa tënk xel mi leen gis naa benn waay boo xam ne yàlla dafa tënk xel mi mu yor charrette mhm. pas yëf yi katakay ni ba ja mais daal wérul à cent pour cent mu yor charrette ba pare nekk gardien école takk benn soxna mais xam nga nu muy joxee dépense. Hmm. bu xëyee jox ndaw si 2000 ne ko dépasse bu takkee charrette bi génn nit ne ko jëlal ma bagage yi yóbbul ma ko fii fay ko 1000 mu weññeekuwaat joxaat ndaw si. ne ko dépasse. Mhm. maanaam diggante bi journée bi lu mu ci for rek dépasse la. Mhm. ndeysaan walaay ndeysaan. lu mu ci for rek. journée bi yëpp dépasse wérul à 100 pour cent. lu mu am ci for rek bu jox xëyee joxe 2000. <laughs> diggante bi ba jant di so. lu mu ci for dina dawalaat fas wi. ñëw ba ci kër gi joxaat ko ne ko dépasse. mais mooy yërmande gi rek mooy yërmande gi rek. ndaw si mu jël bi ndaw si demee ba changé. Mhm. commencé. xam nga yaram wi nay yi. Mm-hmm. commencé diwu leer. benn waaye di ko rogojeer yi ci suuf. <laughs> kii dof bi ngay kii ak ba fexe ba dévier ko. Mm-hmm. ba takk ko ndekk kële. amalu ko njariñ Mm-hmm. mu bëgg a dellu ci kenn ak mbokk yi bañ. Ah. dëgg la wallaay ndeysaan xam na ne. waaye wérul. Mm-hmm. waaye am na njariñ. waaye lu kii wér na lu waaye amul xel xel bi ne waroon na ci kee ah. ma ne ci kii. Mm-hmm. ay DJ Khalil. waaw ah. Adja waxtu bi. ah waxtu bi tënk nañ waaw di duuf ci xar mi moo xejul ci cin bi. wallaay euh, la woon ak contentement vraiment euh, présenté leen seen rubrique néegu sëy noonu la ñu koy toppee la fois mhm. passée rëkk nañ jigéen ñi dëbb ba mu nooy tey rëkk nañ góor ñi dëbb ba mu nooy <laughs> eh, di eh, jërëjëfalaat ñëpp vraiment nos mhm. chers téléspectateurs di jërëjëfal bu baax a baax eh, sama xarit bi Mathias Fashion mhm. tey moom a tere rafle ma nga ca quartier Grand Bourg 2 route de Carrefour numéro bi 77 626 86 27 77 626 86 27 di jaay lépp loo xam ne jëm na ci waa prêt à porter yëre olof ak ay dàll ak casquette ak des bling bling lépp loo xam ne rek góor dina koy sol boo demee foofu. Eh. bi baax la yow. ah loolu baax na. macha allah am na solo bu baax a baax. waxal waa ji mu yàgg fa. mu ñëw fa waaw. Ah. Ah. yooyu du waxal waa ji mu leen wax ñu dem fa. incha allah am na solo ndaxte moom vraiment gis nañu la nga sol c'est très joli. te gëm naa ne moom lépp lu mu fay jaay aussi rafet na. di la ah, DJ Khalil li nga indi ci rubrique néegu sëy am na solo bu baax a baax a baax. pour mm. mariage. Mm. bu ci gën war a def pour tànn borom kër am na solo daal. Mm. xam naa prochainement incha allah. nga wax benn point kon d' accord léegi léegi rek euh, ñu dem pause xool euh, suñu partenaire yi.